waaw bi ci jiitu daal mooy nangu déjà projet bi njëriñam parce que état bu xalaatee ne euh, war na teg ay euh, ay agropole lu ma juróomi agropole ci réew mi dajale région yi ba région bu ci nekk lu amul ñu seet nan la ñu mën a def ba mën koo jëmmal dooleel ko yóbbul ko ci yeneen région loolu xalaat bu rafet la en tout cas ñun wax nañu ne te ñoom tam tëjuñu euh, waxtaan bi région yi ñu ciblé déjà am na lu fa am am na loo xamante ne d'accord nañu pour yokk ci li ñu xalaat mais dañu wax rek ne bu fekkente ne bëgg nañu dë jëmmal l'agriculture au sens large muy càmm gi mbéy mi euh, foresterie ak li nga xamante ne mooy mooy mooy géej gi dafa nekk loo xamante ne il faut ñu boole ci encore li nga xamante ne mooy tax produit yooyu mën a ànd ak jamono loolu la ñuy wax ñun transformation te loolu moo waral mu war a nekk xalaat boo xamante ne dañuy organiser nit ñi waaye fexe ba li nga xamante ne jëmmal nañ ko liggéey nañ ko ñu def ko ko présenté ko présentation boo xam te ni mën nañ ko jaar fépp ci bitim réew dama wax ne wax ciblé nañu tantôt lu mel ni darkase ji ci boori Ziguinchor ak ci suuf boole nañ ci màng ba ndax la muy yàqoo di di di kii mais jàpp nañ ne xëy na buñ ko dooleelee présenter ko ak yu mel noonu ñu jël comme exemple defe naa ne Sénégal yëpp ci gis seen bopp te loolu dina gën a mën a yokk nag liggéeyu ndaw ñi la ci des nag mooy jéem a xool ci biir loolu technicité bu ci nekk dañ ciy def ay formation yu gaaw yoo xamante ni nit ñi dinañ xam fan lañ jëm ak fan la ñu teg seen tànk en tout cas daal gis nañ ne projet bi am na ay réew yoo xamante ne commencé nañ cee dugal seen xaalis euh, am na ñu wax 500 millions. am na ñoo xamante ne ci ay ci euh, lu mot 5 euh, millions d'euros am na ñoo xamante ne wax nañu ay 20 millions d'euros et cetera mais yooyu yëpp dafay prouver ne l'intérêt du projet surtout sur l'employabilité des jeunes ce n'est plus à démontrer donc nag kon li ci des rek mooy fexe ba ba ñu yóbbu bañ a bàyyi kenn muy xale yi muy ndaw yi muy jigéen ñi ndax kenn ku ci nekk am na loo tee dem ci kanam loolu nag dañ ko war a xool dans le cadre du projet seet nan lañ koy def ba jëmmal leen dooleel leen ba quand kenn ku nekk mën a gis sa bopp ca fa nga nekk ak la ngay def loolu mooy tax réew mi jëm kanam loolu daal mooy tax chambre de commerce bu